asalaamaaleykum mbokku Kébémer ak mbokku Sénégal yëpp tey ci suba kon gis ngeen li nga xam ne si sunu sa Aïssatou Lo def na ko muy doomu Kébémer nekk pharmacienne nekk itam euh, PCA wu euh, PENA pharmacie nationale d'approvisionnement mu xëy suba donc indil fii ñu ci Kébémer doom bi nga xam ne si gis nañ ko euh, lépp muy luy njumputukaay yu nga xam ne si am nañ ko soxla ci xeex bi nga xam ne si dañ koy xeex coronavirus bi mu nekk loo xam ne sii nag dañ ko ciy gërëm ndax doomu Kébémer la xaarul sax ñu woo ko xam na li ko war mu gaaw ci xam na li ko war mu gaaw ci def ko nee naa ko nag fii dëkk bi sa cosaan la kenn ëppale wu fi ñun dañ fee nekk mais ëppale wuñ la fi donc lépp lu nga xam ne si lu baax la loo fi war a def waroo cee xaar kenn donc ñu ngi koy gërëm wax naa ko préfet di ko itam fu mu ko war a yeggalee na ko fa yeggal moom ci boppam nag nee naa ko comme yow yaa jëkk a feeñ ci doomu Kébémer def nañ la sunu ambassadrice ci képp kuy doomu Kébémer pharmacien nag mu bañ a nekk pharmacien na nga jël sa téléphone nga woo leen ni leen meeru Kébémer nee na ma coordonné réaction Kébémer yëpp ak doomu Kébémer yi par rapport euh, à leur seen action ci rétro ci ci euh, xeex ak coronavirus bi di ko gërëm rek nag euh, dama ko wax nag ni ko gërëm bi ma lay gërëm moo noon dañu ni nit bu defee lu mu def lu ko war kenn du ko gërëm mais ma ni leen Seydi Sëñ Abdou Aziz Si def ni ah kay ndax ka mel ni moom te deful la ko war loolu moo tax ku def lu la war ku nekk rek war nañ laa gërëm ndax loolu donc ñu ngi ko ciy gërëm te di jaax ñëpp rek ci ñu taxaw ci fegu pour mbir mi fegu jàngal ko xale yi wax ñu téye xale yi ci kër gi bu ñu leen nee bu leen jàngi école ak bu leen dem ci daara yi c'est pas pour ñu nekk ci mbedd mi démb suba commerçant bi ma njëkk aw daf ma ni maire waxal parce que xale yi li ñuy xëy di jëkk di def si tey mooy jënd si bal dafa mel ni affaire bi feetu mbedd bi la mm-hmm. donc loolu bëgg naa kuy communiquer nga wax ci xale yi nañ leen téye ci kër yi raxasu bi itam ñu systématique ko bureau yi yëpp balaa kenn dugg ci bureau yi ñu raxasu balaa kenn génn kër yi ba ñuy dugg ñu raxasu xaalis yi aussi ñu koy xool tey jii dinaa ko wax ak commerçant yëpp commerçant yëpp nañu wut ay gants xaalis moo gën a dangereux commerçant yi nañu wut ay gants di ci jëlee xaalis yi ñoom sax war nañoo yore max ndax ñoom xamuñu kii wax ak ñoom foofu tam te dangereux taalibe yi wax nañ ci dootuñu taxawaalu incha allah ak xale yi ñun daal ñun am nañu réunion bu ñuy def léegi nii ci kanam ci kanam. tek fa dañ fa tek plan yi nga xamni ne si yëpp ànd ak service d'hygiène ak euh, médecin chef bi bu ko defee foofu képp ku nga xamni ne si am na loo ciy ci mbir mi foofu dañ la wax foo koy indi bu ko defee ak service d'hygiène ak euh, médecin chef danañu xam nan lañ koy utiliser ci dëkk bi inshallah rabbi fi ak ci kanam rek danañu tambali rajo yépp woo nañ leen danañ def plan de communication boo xam ne danañu wax ci rajo yi danañu euh, li ñuy danañu yëgle daal yëgle yu bari kon daal maa ngi ñaax ñëpp daal bu kenn soreeti sa rajo man léegi sama saal yi ma installé wul woon télévision sax dama ko faa installé bugg di xam li xew ci waxtu wu nekk di xam li xew ak ak lépp lu ñuy yëgle mu mën ko dégg nag ku ne def sa defaat sa téléphone sa rajo def ko ci sa nopp bu ko defee lépp lu ñuy yëgle nga di ko dégg loolu itam lu am solo la ndax bu ñuy waxte kenn du ñu dégg du am solo réseau bi baax na wante na ñëpp defar seen téléphone yi seen rajo yi di déglu ak seen télévision yi di xam lu xew ci réew mi ak yan mooy ndigal yi ñuy joxe bu ko defee ñu mën koo def ñiy wër ci réew mi itam danañ ko def te waaw bu ko defee lépp lu nga xam ni si daal ko ko wax xam nga ni kii moo la war a wax nga déglu ko dégg ko te jëfe ko waaw loolu daal lañ ciy wax rek ca kanam danañ waxaat tey ci bis bi incha allah. bonjour merci beaucoup euh, Kébémer TV voilà tey ñoo ngi fii ci réception don bi nga xam ne madame Aïssatou Lo moo ko fi indi.

te boo xoolee lim ñu jox pour matériel prévention la comme ni ko wolof di waxee bala ngaa lakkale hein, xoddeeku je pense que loolu la actuellement je pense que peuple bi yëpp mobilisé wu nañ kooku moom da nga koy sentir ci nit ñi sax mais aussi am jumtukaay daf ci baax te jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu war au niveau communautaire moom la ñu indi donc loolu dañ ko ciy gërëm di ko parce que lavage des mains mooy ni ñuy raxase loxo yi loolu rek doy waaw jaarul sax alcogel bi c'est plus pratique mais kooku peut-être au niveau des structures de santé le ko nit ñi gën a parce que ki nga xam ne dafay faj du am temps toujours di tooyal loxo yi bon même bu fekkee dafay raxasoog sabu, peut-être daf koy def une fois après avoir utilisé le gel à quatre reprises waaw donc ñoo ngi ciy gërëm di donc ay pot mu ngi fii ay satala parce que satala yi surtout dafay wane ne raxasu bi warul nekk ben. donc nit ñi dañuy raxasu ñu sottil leen ñu sottil leen ñu raxasu individuellement keneen ñëw ñu sottil ko mais ki nga xam ne dafa ñëw ñu bokk raxasu bi ki njëkk raxasu rek moo raxasu waaw te raxasu bi aussi foog ñu jël suñu temps au moins mu mat ñaar fukki simili ba fanweeri simili waaw raxas bu baax fi nga xamante ni mooy biir loxo bi ak ci ginnaaw diggante baaraam yi yooyu boo ko defee pendant simili yooyu ma wax effectivement microbe bi day dee mooy virus bi doomu jàngoro bi te aussi ñu bañ di laal suñuy bët ak suñuy loxo di ko wala ñuy laal suñu bakken wala gémmiñ bi parce bu loxo yi salté bo laalé yooyu rek doomu jangoro bi bu fekkee mi ngi woon sa loxo dalay lay daal di wàll donc te ku génn aussi boo ñëwee rek nga raxasu raxasu bi moom dañu wax ñu def ko plusieurs fois dans la journée waaw saa boo génnee ba ñëw daal nga raxasu et puis nuyoo bi tamit ñu wàññi ko parce que nuyoo bi buñ ko wàññee rek mën nañu musal parce que cas communautaire yi pour le moment xam nañ fi nu nekk ñu ngi leen di gérer. mais bu amee ñu nekk contact ak ñoom effectivement wàllaate bi dafay bëri moo tax bi buñ ko wàññee même boo nuyoo ko xam am ko te xamuloo ko nga raxas sa loxo effectivement da ngay day tax do doo jël doomu jàngoro bi waaw ba ci yi aussi di raxas seen loxo et puis ñu toog fu nit fu nit warta dem jarul mu fay dem foo amul soxla bu fa dem parce que boo fa demee musiba mën la ci fekk actuellement comme niñ ko semaines yi ñu ñu na ñëpp toog seen kër ku amul soxla bu jàmp jarul ngay génn waaw loolu nag boo ko defee yàlla mën la ci musal waaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. waaw salaamaaleykum euh, man la docteur ay Lo Ngom pharma PCA pharmacie nationale d'approvisionnement di pharmacienne dëkk Kébémer ma ñëwoon fi tey nag pour def euh, une modeste contribution ci sensibilisation prévention wu li nga xam ne moo lëmbee réew mi te. upp bopp doomu aadama yi ñu koy tuddee coronavirus ñii ne Covid 19. muy jàngoro boo xam ne depuis 3 mois ñoo ngi koy dégg si àddina bi mais récemment la dugg Sénégal au début aussi c'était des cas importés mais actuellement on a des cas locaux ñoo xam ne fii la ñu dëkk bokk ak ñun. léegi nag li ci am solo ni naan fagu moo gën fa faju foofu la ñu bëgg accentuer sunu action wax ak population yi sensibiliser leen sur la prévention ñu gën a moytu. lépp li nga xam ne mën na lu fexe mën a lawal doomu jàngoro bi mu demee ne que raxas suñu ay loxo wàññi saafonte bi nuyoo yi wàññi rassemblement yi moo loolu moo tax président de la république El Hadj Macky Sall jël disposition arrêté école yi arrêté lépp du xam ne day dajale ay nit activités yi nga xam ne rassemblement yëpp dañ ko tere loolu njariñ bi mooy ko ku nekk toog fa nga war a toog ku amul soxla bu am farata daal mën nga ko bañ a dem di dox marché yeeg luuma yëpp arrêté nañ ko loolu dañ ci bëgg rek aar askan bi donc li ñu wane fii sànq médecin chef bi wane ko mooy nan la ñuy raxase loxo yi euh, ñu bari ñoo ngi focaliser wu ci gel yi mais gel yi ñëpp xam na ne mënul mate te comme ni ñu ko waxee rek gel yi pour euh, service yi la gën a am solo ñi nga xam ne seen bureau la ñu toog te amuñu possibilité di raxas seen loxo ndax amuñu robine ñoo ñu tegal gel yi mais ci niveau kër yi nit ñi nañu fagaroo saabu ordinaire saabu ordinaire yomb na nga teg ko ku dugg ci kër gi raxasu ba ngay dugg ci kër gi ku dem ba ñëw raxasu loolu dafa am solo bis bu école bi ubbi waté aussi même chose la ñuy defaat bu buy ñëw dugg si école na nga raxasu bo ñibbi sa kër na nga raxasu parce que loolu dañ ko wara a dugal suñu culture au delà de cette pandémie là que nit ñi tàmm ni xam ne raxas loxo dafay aar ci lu bari donc feebar bi daal noonu na loo xam ne jaaxal nañu mais ñoo ngi ciy rafet njort comme système sanitaire bi jël nañ ko les devants mesures yi ñu war a jël yëpp gouvernement bi jël na ko euh, ministre de la santé jël na ko ñoo ngi koy sargal moom aussi donc li ci des mooy population bi jouer leur partition mooy jàppale seen bopp jàppale seen bopp moy liñu téré yépp ñu moytu ko té xamni pour seen njariñ rek la ñu ñaan yalla nak lii gaa fi juggé ñu dund ba kay yi nga xamni jot na feñ ñu traité len fajj len ñu wër té benen ka bañ fi feenaat mu baña am benn décès ñu dund bay fàttaliku année coronavirus wala année 2020 bu Covid 19 bi loolu la ñuy ñaan donc ñu ngi leen di santat bu baax di leen gërëm di leen wax ni ñun daal di suñu asaka yéene rek la ñu ngi ñaan yalla doomu kay Kébémer yépp monsieur le maire nee def nañu ñu nekk porte parole maire au niveau de tous les ressortissants de KMR comme ça dinañ woo sunu dëkkandoo yi ak sunu mbokk Kébémer yëpp ñu nekk biti ak ñu nekk biir pour ñu jàpp ci indi aussi seen ndimbal pour ñu accompagner commune bi loolu la ñuy doon am lu ñu si wax jërëjëf.